secteur ça me mm -hmm. ça me je pour brosser un peu li ngeen fi wax yëpp man euh, je m'arrête sur le titre de l'ouvrage que vous avez cité tous les deux mhm. de la concurrence à la, la concordance. concordance on peut dire qu'aujourd'hui c'est le titre qui vous représente en tout cas qui représente mm -hmm. la situation que vous vivez actuellement tout quand je parle de concordance c'est celle avec euh, Bassirou Diomaye Faye ou encore le projet de PASTEF mm -hmm. on va se projeter man tey jii au-delà de la proposition programmatique mhm. on se projette euh, Pastef gagne Bassirou Diomaye Faye est président mm -hmm. qu'attendez-vous au lendemain du 24 mars de seen lëkkaloo bi vous et le parti Pastef qu'attendez-vous concrètement de votre alliance que Bassirou Diomaye Faye président de la République du Sénégal exécuter le projet panafricain bi nga xam ne moom lañ ko jox bon bu dee nag question politique Sénégal ngay posé. <laughs> moi moi j'ai voilà mois j'ai di mhm. te am naa ay seede. Euh, que ne amul fenn fu ma toog. Mhm. ak ku bokk Pastef di négocier quoi que ce soit. Mhm. am na ndax ay yàqkat yu naan waaw dégg nañ seen réunion ngeen naan ay ministère rek gis nga ku créer parti. bëgg nga lu raw ministère. ku créer parti. da nga bëgg a doon président mhm. am premier ministre am directeur am et cetera mhm. mais loolu mooy li ngay wutali sa bopp sa conquête bopp ñun tey toog waxtaanu ma ak ñoom affaire partage mhm. waxtaanu ma ak ñoom dara gis nga d'ailleurs quand ils sont venus me voir chez moi def ngandum délégation ba leen ciy remercier ñëw fekk ma sama kër mais réunion boobu y avait plus d'une centaine de personnes waaw ah oui parce que dama convoqué parce que maa leen doon wax sànq suñu assemblée générale bi bi ñu jëlee décision mais assemblée générale bi pour que décision bi gën a leer dama créé waat beneen comité de synthèse d'une vingtaine de personnes ne leen assemblée général bi lii la wax def leen dépouillement ngeen indil ma résultat final. waa PASTEF def ngandum délégation ñoom Guy Marius Sagna ñoom Birame Souleye seen ñoom ñëpp ñu ñëw. Mhm. sama kër soirée bu neex parce dafa tombé sama jour anniversaire. sama jour anniversaire d'ailleurs la tomb waa awale yëpp nekk fa. y avait plus d'une centaine de maisons mais bi ñuy toog di waxtaan amul tëju ci néeg mhm. amul ñaaro ñëpp a toog mais docteur toutes les personnes que vous avez citées là euh, nga baal si je peux me permettre ce sont des personnes qu'on a l'habitude de voir faire dans le populisme tout à l'heure on a parlé ah, d'un certain <laughs> non ce n'est pas péjoratif c'est un fait mhm. mooy loo xamante mhm. ni lu ñu gis c'est des personnes qui traînent des foules des personnes qui sont souvent au milieu du peuple de la masse si je peux dire comme ça mhm. tout à l'heure on a parlé d'un certain bon déjà jàppewuma ko populisme c'est-à-dire que bu dee li ngay wax askan bi gis nañ ci seen bopp pour man c'est pas du populisme c'est-à-dire on est à côté de son peuple hier on a fait une caravane à Rufisque avec la coalition Diomaye président wax dëgg yàlla caravane bu réussir ñu génne mais xam nga euh, ku mel ni Guy Marius Sagna maa ngi koy nuyu dafa miin zone boobu y a pas dix jours am nañ foofu problème ay lende problème mu lendeng waa Colobane Guy Murit maa ngi leen di nuyu d'ailleurs Guy maris Sagna dafa def déplacement déplacement ñëw fa. bu bari ñu amee problème mu sendu daf euh, sendu port bi dafay ñëw. bu ndayaan amee problème mu port de ndayaan dafay ñëw. donc par exemple que kooku Guy Marius bu nekkee ci oto bi da ngay gis bu ñu demee ci benn localité. boo xam ne mas na leen défendre ci benn dossier. <laughs> <laughs> mais dañuy sorti naan mais ana gii ana gii ana gii. loolu man du ko woowee populisme. Mm-hmm. parce que ñooñu dañu am seen soxla. Mm-hmm. moom mu ñëw taxawal leen seen soxla en tant que député de la nation. Mm-hmm. beneen bi mooy nit ñi yemuñu profil. tout nit ñi yemuñu parcours. am na koo xam ne mën na taxaw tey wax arranger les foules ñëpp déglu ko. am na koo xam ne moo ëpp xam-xam moo gën a aay ah mais mënul wax sax aligné ñaari phrase yu correct ci biir public parce que dafa parce que dafa timide mm-hmm. mais bés bu ñu nekkoon tey au gouvernement mais complémentarité boobu lañ soxla mm-hmm. man am na yoo xam ne mën naa ko loolu la ñuy dooy avantage comparatif gën naa ko mën ñeneen ñi ça veut pas dire que mënuñu ko mais gën naa leen ko mën mm-hmm. mais y a des domaines où beaucoup plus forts que moi on les laissera exercer moo tax ma la doon wax sànq l'intelligence du président Diomaye Faye bu ñu ko falee yow yaay xool man boo am naa ci quelques notions de leadership te maa ngi koy pratiquer nga essayer jël ce qu'il y a de chez quelqu'un man waa awalee li ñu may reprocher des fois mooy duma leader boo xam ne damay yuuxu wala di tàppe ci table bi wala may gëddaate ma ne leen man concevoir uma engagement politique noonu mm-hmm. parce que engagement politique boo ci ñëwee surtout dans un pays comme le Sénégal yow yaay cotiser yaay joxe sa xaalis mm-hmm. yow yaay joxe sa temps yow yaay wuti ay nit yow yaay def sa don de soi pour que le projet marché boo ci naree boole ñu lay yuuxu ak gëdd du sotti ma ne leen ku ci nekk ci yéen xam naa sa ay qualité xam naa sa ay défaut du ma ne les défauts ne m'intéressent pas mais moi je vais chercher tes qualités mm-hmm. léegi ku nekk bu ñu boolee ay qualité mais c'est là où tu as une grande nation mm-hmm. tey ce matin rek am na ku ñu doon waxtaanal bon on écoutait le discours de politique générale de Amadou Ba bon ñu koy kaañoo di ko tooñ <laughs> mu ne ma mais Amadou Ba ni mu bindee discours bi nii dafa mel ni yow sa style la quoi ma ne ko bon de toute façon wóor na ne binduma ko mu ne ma waaw ma ne ko xam naa à peu près moo ko war a bind. Mm-hmm. c'était une façon de lui dire Amadou Ba bind ko. Mm-hmm. c'est-à-dire que quand tu es un bon leader. ak àdduna mm-hmm. bi tey ni muy doxee. il faut t'entourer des meilleures compétences possibles gis nga loolu boo ko réussir dëkk bi day décoller te affaire bi du tàkk. Ah, mais docteur euh, oui je ah, me bëgg a poser question en même temps la soirée là chez vous. waaw waaw vous pas terminé la narration. waaw foofu laa doon expliquer. da bëgg moo wax. Euh, affaire bu baax baax yi fa amoon yooyu. non affaire bu Cissé quoi. non non non ce que je ah. mooy waxtaan boobu. Mhm. amul huis clos xam nga mënoon nañ ñëw ma jël biram su lay wala gii ñu toog quelque part ñaaroo waxtaan. mais je te dis ça s'est déroulé devant une centaine de personnes. je leur ai je ne pose aucune condition. boobu officialisé guñu sax discussion bi mais jox naa leen ay orientation ne leen ñun bu ñuy liggéey lii laay xalaat ak lii ak lii j'ai mis sur la table des principes. man leen le respect du loo xam ne dañ koy négocier. àndu nawle la ñuy mën a ànd. c'est pas parce que kii moo jàll parrainage kii jàllul parrainage que kii moo mën kii mais dañuy ànd pour liggéey Sénégal j'ai mis sur la place la question du projet. on en a discuté ñu xam ne xam naa seen projet ñu tenir compte le fait que sama projet dafa war a dugg seen biir projet yooyu yëpp on en a et la délibération s'est faite vraiment comme je vous ai dit en commun donc amul fenn fu ma toog ak ñoom. Hmm. j'avais même prévu d'ailleurs seeti Diomaye je n'ai pas pu le fair hmm. parce que dañu restreindre dem naa ba am permis bi mais dañu restreindre ses conditions de détention ce qui fait que j'ai pas pu aller le voir ñun daal tey projet Diomaye bi. Hmm. ñu ngi ci. ñu ngi ciy liggéey nee naa leen lu ñu am ci xam-xam dinañ ko ci indi. d'accord lu ñu am ci alal dinañ ko ci indi. lu ñu am ci nit mooy électeur dinañ ko ci indi te ñu benn question benn condition.